Bonsoir. Euh, nous venons d'apprendre le verdict au niveau de la Cour suprême. Je pense que sur le volet juridique, il n'y a pas grand-chose à dire parce que nos excellents avocats ont déjà fait le nécessaire. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce procès, ou en tout cas ces euh, différentes audiences, sont éminemment politiques, rien d'autre. Moi, je considère que c'est une honte aujourd'hui qu'on essaie d'éliminer un candidat, de surcroît le chef de l'opposition, le favori de l'élection, avec différents procès Ils ont commencé avec l'histoire de Sweet Beauté. La justice nous a donné raison au moment où le Conseil constitutionnel est en train de travailler sur la validation des candidatures. Il nous sort de manière expresse l'affaire Prodac. Personne ne doute, je dis bien personne, que ça soit sur le plan national comme sur le plan international, ne doute du volet politique de ces différents procès parce que tout simplement, l'objectif est d'éliminer le président Ousmane Sonko qui est le candidat favori de l'élection présidentielle de 2024. La preuve, il a été condamné pour trois mois. ils se sont rendus compte que trois mois, deux mois du moins, euh, avec sursis, ne pouvaient pas l'éliminer. Et comme par hasard, ils ont tout fait pour fouler du pied le droit en euh, refusant d'attendre même euh, le délai, en tout cas, de recours dont jouissait le président Ousmane Sonko pour essayer d'accélérer la procédure et obtenir une condamnation éliminatoire. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est pourquoi ils ont procédé euh, à un appel pour obtenir les six mois. Et aujourd'hui, euh, en cassation, nous avons vu en tout cas un verdict pas courageux. C'est comme ça que je peux l'appeler. Parce que l'exception d'inconstitutionnalité, normalement, devait être respectée et la Cour suprême devait renvoyer au niveau du Conseil constitutionnel qui pouvait apprécier. Mais le président Ousmane Sonko reste dans la course, c'est ce qui est important, reste candidat. Sa candidature sera examinée demain. D'abord les parrainages. Ensuite, le Conseil constitutionnel va rentrer dans le fond parce qu'en plus des neuf pièces qui sont fournies, ils peuvent aussi, en fonction de tous les documents dont les avocats ont mis le mandataire a mis sur la table, apprécier si sa candidature sera recevable ou pas. Et nous, nous restons convaincus que sa candidature sera recevable. Euh, bu ñu koy tënk ci wolof dañu naan li am solo mooy euh, verdict bi fi am tey jàpp nañ ne du verdict boo xamante ne nii en tout cas bi defar image u la ndax ci Sénégal adduna bi yëpp a ngi xool gis ne candidat bi nga xam ne mooy président Ousmane Sonko di chef de l'opposition nekk candidat bi nga xamante ne ni tey ñëpp jàpp nañ ne mooy favori ci élection yi ba ñoom ñemewuñu ko affronter ci élection yi malgré lu ñu am yëpp nee nañ ci bilan ci moyen ak yu ni mel ñu bëgg def lépp ngir éliminer ko ñëpp gis nañ ne depuis trois ans ñi ngi rey seen bopp ci procès Sweet Beauté ca cëppaandaw ga amuñu ci dëgg amuñu ci la ñu bëggoon ñu dem sulliwaat dossier boo xam ne bu ne ci àdduna bi am na candidat bu ñuy éliminer ndax lan diffamation te ñëpp xam nañ ne diffamation amu ci ndax li mu wax dafa leer sénégalais yëpp ko wax waaye ak ci jaay doole ci la ñu ñëwee indi ñu déjà ñaari Mame Mbaye Niang d'abord Mame Mbaye ministre ak Mame Mbaye bu dul ministre ci benn dossier vice de procédure yu dul jeex ngeen gis ne tamit euh, ñoom procureur gaawantu woon nañu déposé appel te délé de délai bi Ousmane Sonko amoon pour déposer recours am mi 30 jours sax matagul woon yooyu yëpp c'était pour jéem a gaawtu am benn condamnation bu ko mën a éliminer ndax ginnaaw bi ñu ko daanee deux mois ñu xam ne deux mois mënu koo teree bokk li ñu gis mooy dañu gaawtu jéem a am benn euh, ci loo xam ne dañ ne woon dafa bëgg rag deram yaakaar naa ne loolu doyoon na bu dee rag der waaye bi yoon lii ñu gis mooy à chaque fois état dina ci dugg avec les mêmes avocats des mêmes dossier juste pour obtenir benn condamnation mais ñu jàpp ne loolu yëpp dañu sonal seen bopp ndax conseil constitutionnel tey ginnaaw neuf pièces yi nga xam ne dinañ ko joxe ñu saytu ko dañu saytu aussi ci aussi ci fond bi te euh, dossier bu beton la ñu teg ci seen boo xam ne bu ñu ko xoolee dinañ xam ne kii moom dossier bi ku a nekk candidat la te nañ ne dinañ nangu candidature am d' abord dinañ ko apprécier demain ci côté parrainage beeg yooyu ensuite gëm nañ ne le 20 bu ñu publier liste définitive bi président Ousmane Sonko dina ci bokk leneen li am solo ñu koy wax mooy mbirum parrainage yi mais dafa nekk mbir mu doy waar ndax Sénégal dañu wax nit ñi ñu dem wuti parenage nit ñi wàcc wuti parrainage Sénégal xam na ñëpp xam na ne Pastef parrainage tawuleen ba muy gën a métti ñuy gën a néew doole ca deux mille dix neuf dañu amoon meilleur parrainage bii bi ñu lancé parenage ba siru Diomaye fay sénégalais yëpp daw wut si pare nañu ñu am parenage bu mucc ay vérifié ko naka la ñu mën a considérer ñu ne ñu douze mille plus de douze mille nekkuñu ci fichier bi noonu lañ ko waxalee Mary Teuw Niane noonu lañ ko waxalee Cheikh ba Dièye ainsi de suite am na ci lu ma juróomi candidat yoo xam ne boo boolee li ñu wax ne nekkul ci fichier bi quatre-vingt-un mille ñoo xam ne yor nañ seen i carte électeur daa di pare ne ñu ne nekkuñu ci fichier bi loolu lan lay firndeel élection yooyu boo ci demee mais c'est vicié euh, d'avance c'est-à-dire que loolu ak càcc la parce que li am solo ba am solo mooy fichier bu leer nañ nit ki yor carte électeur mu am numéro carte électeur di sénégalais mësoon na sax voté ñu ñëw ñu ne la ah kii kat nekkul ci carte électeur ñuy wax conseil constitutionnel nekkul ci fichier bi conseil constitutionnel dañ koy wax na xoolaat bu baax li ko daaf jox te mu revoiraat fichier am woowaat candidaa yooyu ngir mën a saytuwaat loolu parce que lu doy waar la te candidat yi duñ ko bàyyi candidat yëpp dinañu dajaloo dinañu attaqué décision yi nga xam ne nii jël nañ ko di éliminer pêle-mêle des candidats ci lan nga def sa parrainage ba ñëw ñu vérifier ko lépp normal nga xam ne carte di carte électeur yi carte d'identité yëpp disponible na ñu ne la ñii nekkuñ ci ci ci fichier bi. te duñ la may parce que liñ ci jublu mooy lan bu ñu la waxee ku mel ni Bassirou fay bu ñu la waxee ne la douze mille nekkul ci fichier bi waaye am na six mille doublons mu war a remplacer six mille doublons yi ñu ne ko quatre mille la war a wut. bu indiwaatee 6000 doublons yi la moo leen teree ne 3000 yi nekkuñ ci fichier bi donc yow da ngay dem toog xam nañu liñ si jublu waaye duñu ko bàyyi mu jàll donc dañuy woo conseil constitutionnel encore une fois na dem jëliwaat fichier bi te wax ñu fichier bi li ci nekk depuis bi régime bi nekkee fi ça fait 12 ans coowal fichier bi jógu fi kenn mënul xam lu nekk ci bi kenn munul xam ban fichier la ñuy appliqué c'est comme si dañuy bàyyi bu Bassirou waree ñëw ñu génne beneen fichier bu bu bu bu euh, Marita waree ñëw ñu génne beneen fichier wala xëy nañu ñu rocc ay nit kenn xamul xew parce que mënuñu comprendre ñu am seen ay carte électeur pare ne ba pare ñu ne leen ñii kat nekkuñu ci fichier euh, euh, kii bi électoral donc dañuy woo mbooleem candidat yi nga xam ne léser na leen ci boor boobu ñu dajaloo daal di xeex ngir ñu rétablir leen ngir ñu génneel leen fichier bu baax ñu mën a comparer seen ay parrainage parce que ñu kenn xalaatul ne war ñu mën a am parrainage dañuy wax ne jàll nañ d'office asuma ñi nga xam ne parrainage moo leen doon wër. en français sur le parrainage. sur le parrainage oui. euh, euh, nous sommes en train de constater des faits inédits. Hmm. le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme d'autres candidats euh, ont été au niveau du Conseil pour faire valider leur parrainage et à leur grande surprise, on leur a notifié des milliers de parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce qui est incompréhensible. Parce que tout le monde sait que PASTEF n'a pas un problème de parrainage. Aujourd'hui, s'il nous demande 58 000, on ramène 58 000 dès demain. Il nous demande 100, le double, on le ramène dès demain. C'est pas ça le problème. Le problème est que les parrainages qui ont été collectés avec des cartes électeurs en bonne et due forme et qui ne se retrouvent pas dans le fichier, il faut aller chercher ce qui est en train d'être fait sur le fichier électoral du Sénégal. Quand on cumule les parrains, les parrains qui n'existent pas dans le fichier, entre Cheikh Bamba Dièye, Mary Teuw Niane, Babacar Diop, euh, Bassirou Diomaye Faye entre autres on est à prix de quatre-vingt-un mille quatre-vingt-un mille parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral c'est pas possible donc encore une fois nous demandons au Conseil constitutionnel de revoir son fichier ou ses fichiers avec l'ADAF pour produire le fichier le plus actuel et le plus correct, rappeler tous ces candidats-là et leurs mandataires en tout cas euh, euh, revoir le processus et peut-être réexaminer leur dossier. Parce qu'aujourd'hui, nous devons fournir 4234 parrains pour compléter, avec 6000 doublons, 6609. Qu'est-ce qui nous dit que si on dépose les 6609 dès demain, ils ne vont pas nous revenir avec 4000 parrains qui n'existent pas dans le fichier C'est comme s'il y a quelqu'un qui est derrière qui, qui retirent des en fonction du candidat qui vient, entre autres. Personne ne comprend ce qui se passe dans le fichier et nous interpellons le Conseil constitutionnel pour faire le nécessaire. Nous demandons à tous les candidats qui sont impactés par cette injustice de se liguer, de se battre pour que justice euh, soit rétablie, pour qu'ils soient, en tout cas, euh, euh, que leur dossier soit réexaminé afin qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle. Donc voilà ce que nous aimerions dire sur ce dossier-là. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Euh, euh, euh, ko bu moom mi nga xam ni moom moo di kon ki la di El Malick Ndiaye dégg nañu kàddu yi nga xam ni kon yëkkati na ko ci wàllu woowu ñu daal di si nag ci li nga xam ni rek moom moo di cappaandaw gi voilà. Eh, nangu ñoo jël seen micro de am. c'est qui ma ko. kii moom mooy kan. xaw bi. Eh. Euh, juste man dama bëgg a wax ak euh, sénégalais yi dama bëgg a wax ak patriotes yi dama bëgg a wax ak ñi nga xam ne dañu gëm projet